ci ab dëkk bu diine fës lool tabax fa ab jumaa day doon lu am solo ci jullit yi njiitaluk commission religieuse bu kuréel gi ëmb waaye dëkkandoo yi fare ci almadi di 17 ak li ko wër mu ngi di dikkaat ci lu sabab ñu bëgg a taxawal bile bërëbu jullikaay. amoon na ay yu bari waaye fa tabaarakallaahu koñ bi ñëpp taxaw ci ñu gis autorité yi gis mboolem ñu ñu war a gis ñu dox ko ba yàlla def état bi jox ñu bàyyi bi jox ñu terrain bi nga xam ne fi la taxaw tey eh, waaye it ñu song autorisation de construire moom it yombul woon waaye yàlla ak pas-pasu nit ñi ak xëy na destination place bi tax suñu borom yombal ko. gannaaw ba mu rafetloo lu ni mel imam grande mosquée oumarienne ma nga ñuy fàttali njariñu bi la jullikaay ci ñi nga xamante ne ñoo di jullit ñii mun noonu nañ ko def leneen mais ñu jël ko def ko jàkk ñun tam ñu ngi leen siy félicité ndax jàkk mooy këru yàlla. damay ñëw rek bokk si jullit yi. Mhm. ñoo kontaan di ñaan nag jullit yëpp fu jullit nekk. Euh, nañ ci def seen alal. jumaa bu bees bii doon na luy gën a dooleel jàmm wante itam lëkkaloo gu mucc ayib ci ñi nga xamante ne ñoo di dëkkandoo yi. Eh, jumaa li muy représenté mooy siège social lu jullit ñi fa tabaarakallaahu kon boog jullit yëpp. ñu roy sunna si yonent bi sallallahu bi ñu nekkee ci quartier bi quartier bi ay jullit bari fi ay jullit ëpp fi nga xam ne dañuy jóge fii di julli ji fu sori wala sax ñenn ñi di obligé sax di jullee seen kër ñu ne ah lii nag jaaduwul bile bërëbu jullikaay ñu war ko tabax ak koppar gu tolloog téeméer ak juróom-benn fukki million ci ab diiru ko ñetti at xeer bu njëkk bi di wone ndorteelu ko liggéey bi teg nañu ko ci gaaw bi yem fukki fan ak juróom ci weeru ko suliyat atum 2023